kon tey ñu bëggoon waxtaanee li nga xamante ni mooy confiance en soi mooy gëm sa bopp waaw gëm sa bopp euh, fexe nekk nit boo xam ne nag da ngay nekk nit ba spécial ndax tey da gis euh, nit ñoo xamante ni par exemple da ngay gis ñu am ay lacune ci côté bëri ñàkk gëm seen bopp ci seen côté professionnel ñii ci seen physique ñii ci seen relation. ñii ci seen côté yu bëri nga xam ni nit ñi dañuy jàmbat naka laay def pour am confiance naka laay def pour wóolu sama bopp naka laay def pour mën a communiqué parce que mënuma communiquer ndax ñu bëri dañuy jàmbat timidité te timidité bu ñu koy jàmbat comme ni ma koy waxee rek manque de confiance en soi la parce que timidité euh, nekk na loo xamante ni c'est pas normal à nit mën na nekk nit bu introverti nit boo xam ne waxam bëriwul mais quand même n'empêche nit la boo xamante ni bu jotee day wax soxlaam kon timidité jotewul dara ak euh, nekk introverti te loolu suñ ko xamee rek war nañu xam ne timidité bari na li koy indi parce que ñun ñëpp nag suñu nature bi ñu am tay nit ku ñu doon tay suñu yar moo ñu yóbbu foofu waa parce que ku nekk tey euh, selon éducation bi nga recevoir avec le temps ak expérience yi nga def tey fi nga toll nii euh, say expérience moo la def nit bi nga doon yaa xam ndax tey nit nga boo xamante ni macha allah tu es confiante à travers épreuve yi nga dund à travers euh, xat-xat yi nga dund à travers aussi expérience yi nga dund wala tey nit nga boo xamante ni presque danga dem ba nga xam ne daal danga xaw a découragé ci nit ñi découragé aussi parce que tu as fait beaucoup d'efforts sans résultat yu grandiose euh, gisoo sa amélioration ci yenn côté yi nga xamante ni xëy na dans ta la ñor la et kon il est temps qu'à un certain nit ki nga taxaw càmbaraat sa bopp xool bu baax réellement lan moo la teree avancé lan mooy li nga xam ne tey moom nga jàpp ni moo lay baare parce que des fois tamit on a tendance di blâmer nit ñi wala di jël suñu faute yi di ko rejeter ci nit ñi te bu ñu xoolee ba ci biir la majeure partie euh, li ñuy joxe rek moom la ñuy delloo parce que tey su fekkente da nga nekk nit boo xamante ni euh, wóolu nga sa bopp gëm nga sa bopp sooy wax wala sooy jëf daf ciy feeñ te boobaa nit ñi dañuy mën a percevoir si yow que ni doo nooy neexu kenn bu ko defee kenn du jóggi sa kaw mais su fekkente ni booy wax da ngay refléter manque de confiance waaw da ngay wane tamit benn ragal da ngay wane aussi. ak assumer sa bopp en quelque sorte. ah boobaa nit ñi dañuy percevoir sa ragal te dañ lay mën nañ la attaquer mën nañ la def du n'importe quoi kon en ce moment mbir mi si ñun lay delluwaat mooy tey soo demee ba am conscience que ni nit ku nekk am nga force intérieure nit ku ne am nga capacité imposer sa bopp assumer sa bopp nit ku ne am nga aussi euh, intelligence pour nekk nit ba spécial nekk nit boo xam ne tu n'es pas une personne banale mais tu t'enrichis euh, da ngay fexe def sa processus sa amélioration di nga dem ba nga xam ni euh, vraiment mu war nga mën a nekk nit boo xam ni lépp li nga bëgg a acquérir sa àddina bu neexee yàlla rek war nga ko mën a acquérir selon effort yi ngay apporter salon aussi euh, li nga xam ni mooy connaissance bi nga ciy apporter. kon suñu delloo si loolu nañu dellu ñu étudier li nga xamante ni tey mooy ñàkk gëm sa bopp wala ñàkk wóolu sa bopp fan mooy source bi fan mooy source bi. parce que dëgg la tey nit ki bu fekkee da nga recevoir éducation boo xamante ni euh, si un peu drastique wala boog c'est un peu wala dafa nekk éducation boo xamante ni Euh, dañ la bàyyeek sa bopp rek daanaka yaa sa bopp en quelque sorte éducation moom mooy refléter tey nit bi nga doon te su fekkente ni éducation boo xamante ni ça n'a pas été à ta faveur dans le sens que éducation bi def na tey ci wax yu ñu la doon wax ci xëy na mm, yenn critique yoo doon jot parce que li may wax naan tout le temps la plupart si famille yi ñu éducation suñu yaay suñu papa yi nekkuñu dañu dem dugg école jàng éducation wala tey si yi chance bi ñu am ñun wala YouTube bi wala à travers les livres nga xam ne da ngay xam xale bi ñu la jox xale bi nga jur lan la soxla lan nga war a def si moom lan nga ko war a apporter quels sont les besoins de l' et que tu t'y mets pour fexe sa doom am éducation bu dëgër malheureusement ça n'a pas été le cas pour la majeure partie des personnes ku nekk tey waajur bi nga dajal da doon làmbatu rek te li mu am la la jox parce que éducation ça se transmet génération en génération. ku ne xam ne éducation suñu yaay ak suñu papa dañ ko jëlee seen yaay ak seen papa ñoom tamit ñu paas leen ko jusqu'à ce que mu egsi ci ñun tey la majeure partie suñu màggee ku ci ne da ngay ci éducation bi ñu la jox même bu dee am na ay ay pakk-pakk doo jéem a revisiter xool ne ah est-ce que du ma xoolaat en éducation bi ñu ma jox lan moo si lu ma war a revisiter lan mooy lu ma war a dindi lan mooy lu ma soxlawul. parce que des fois nit ki su fekkente ne da ay bagages yoo xamante ni. da ko ancré au fin fond euh, ci sa subconscient nga xam ni moom mooy conditionné sa paradigme comportemental yi di nga am problème mu tey bëgg a soppi yenn jukko yi parce que di nga bëgg bëgg-bëgg mi ngi fi mais capacité bi nekk fi parce que tey yaa ngi ni maa ngi bëgg a soppi li mais nan laay pour soppi ko loolu tamit beneen problème la boo xam ne la majeure partie si nit ñi dañ koy dundu mooy euh, nit ki mën nañu la jox mille conseil xamal la ni non da nga war a def lii da nga war a def dama war a def lii mais comment le naka laa koy defee donc soo demee ba xam comment le faire naka laa war a def pour changer li nga xam ne mooy sama paradigme yooyu mooy nga xam ni sa gëm-gëm dafa ancré wu depuis ba âge nga nekk xale selon gëm-gëm yi la say waajur jox selon bëgg-bëgg yi ñu jox selon bañ-bañ yi ñu lay jox en quelque sorte yow soo demee ba maa ngi sa bopp mën nga yóbbaale bagage yu bëri yoo xam ne moomoo ko maanaam di nga am gëm-gëm yoo xam ne réellement mosoo revisiter gëm-gëm yi est-ce que samay gëm-gëm la yu ma wala est-ce que dama judd rek dégg ñu naan bon na bon na bon na ma ni bon na wala est-ce que dama judd dégg ñu naan baax na baax na baax na ma ni baax na wala est-ce que tout simplement man maa am conviction parce que maa étudier xool xam gëm parce que loolu mooy conviction loolu mooy gëm-gëm te loolu mooy soppi paradigme bu mu mën a doon mooy tey su fekkente ni damay joxe exemple bu banaa ah, la euh, mën na ne concerné wul ñu bëri mais exemple bu banal la su fekkente nit ki bi nga nekkee xale tey su heure boo defee erreur ñu xamale yow da nga dof xamoo dara ah à chaque fois da nga nga mën a yàq wala yow xam da nulaar wala da nga donc tout le temps paroles négatives yooyu nga dégg nga dem ba màgg mosoo toog nga vérifier mais est-ce que man réellement dama dofe wala est-ce que réellement dama nulaar wala est-ce que man dama wala est-ce que ñoom seen perception rek lañ ma doon wax lan mooy problème bi kon il est temps kon nga xam sa bopp nga étudier waat sa bopp parce que connaissance de soi tey daf lay may nga xam réellement sama capacité est-ce que dañ ko réduire à ça wala man maa réduire samay à ça parce que nit ki tamit mënoo xam samay capacité fan la mën a egg su fekkee ne jéemoo def expérience jéemo euh, def yoo xam def yu bees yoo xam ne tey ay euh, quelques rencontre maanaam challenge sa bopp challenge aussi sa connaissance pour xam fan laa mun a yem ci samay limites tey à travers épreuve yi la yàlla di jox ni nga koy solutionner à travers aussi euh, ni ngay sa sa milieu professionnel donc dina am problème yu bari yoo xam ne tey dina ñëw sa àddina nga mën a xam man est-ce que réellement je suis bête wala est-ce que réellement dama intelligent et avec ça avec le temps mën nga sonder aussi sa entourage xool est-ce que réellement paradigme yooyu nga xam ne tey moom la ñu ancré woon sax euh, sa sa subconscient di xaleel est-ce que réellement loolu moo fa nekk wala est-ce que cette perception juste ñu la doon yar parce que nit ki sa yaay mën na énervé wu ne da dof waay yow wala sa papa énervé wax la wax boo xam ne dafa négatif yow en tant que doom xale nga amoo discernement lu ñu la lu négatif ak lu positif danga koy jël parce que amoo discernement pour xam est-ce que li ma wax réellement c'est ça wala du du loolu vu sama yaay la moom mu wax sax kon dëgg la parce que moom ma jur moo ma xam kon su ma waxee lii dëgg la et ko sa bopp avec le temps nga dem ba gëm ni man capable ma dara. nga gis nit ñu bëri tey yi dem a dem ba nga xamante ni waaleykum salaam tula soxna da gis ñoo xam dañuy dem a dem ba nga xam ne dañuy obligé di dem di def recours ci ay maamën partout parce que jàpp nañ ni ñoom toute seule mënuñu arrivé. ñaanal ma sama wërsëg ubbeeku ñaanal ma ma am lii ñaanal ma ma def lii ñaanal ma parce que tout simplement nit ki gëmul ni toute seule mën na amal boppam examen à travers su jàngee wala nit ki gëmul ni toute seule mën na liggéey amal boppam à traverse ses propres efforts euh, fonder boppam loo xam ne dina mën a màgg donc nit ki la fekk nga bañ a gëm sa bopp day tax doo gëm say capacité doo ko wóolu wala à chaque fois soo defee dara beneen mu raté nga dellu ginnaaw wala ngay auto sabote sa bopp nga def dara ba mu commencé baax nga ragal succès wala ragal réussite nga auto sabote sa bopp retiré waat pour valider tout simplement li nga xam ni moom lañ la tàmmoon di wax que ni xamoo dara tu n'es pas intelligent wala tu es bête donc suñu demee si loolu dinañ gis ni kon paradigme yooyu dafa sori. naka nga koy mën a désinstaller mooy nga xam déjà man yan croyance laa am à travers moi yan pensées yu négatif laa am ci sama bopp yan gëm-gëm laa am parce que soo xamee yow lan mooy pensée négatif yi nga am nga xam yow image bi nga am ci sa bopp image bu positif la image bu négatif la nga cerner aussi nit ñi lan la ñuy wax si yow réellement est-ce que loolu dëgg la wala est-ce que dañ la uniquement pour t'atteindre parce que des on a vu <laughs> beaucoup de choses donc soo sondee ba pare di nga mën a évaluer nga xool réellement man lam mooy sama nature tey boo xoolee def nañu bokk de cours euh, sur la découverte de soit ci Enneagram mu ngi suñu YouTube ku ko bëgg a xool mun na dem xool ko tey boo demee ba xam man lii mooy sama personnalité lii mooy samay défaut lii mooy sama tempérament lii mooy sama essence lii moom mooy motiver lii mooy samay peur dangay cerner sa bopp te boo cerner sa bopp di nga mën a xam ni kon man lii bokkul si man te comme bokkul si man naka laa mën a def pour dindi ko li ñuy wax naan ni nga ko mën a def pour dindi ko mooy li ko fi indi woon te lan moo fi indi woon say habitude ak say mauvais comportement soo seetloo bi nga nekkee xale répétition bu bëri ñu la doon répété ay kàddu moo tax nga ancré ko gëm ko say jëf tamit répétition bu bëri comme entraînement moo taxoon say jëf nga dem ba am ay comportement yoo xam ne c'est négatif et c'est néfaste pour toi donc répétition bëri moo ko fa ancré kon soo ko bëggee dindi aussi répétition le contraire de ce que tu enlever moo ko fa mën a dindi par exemple tey nit ki am nga addiction téléphone exemple bu <laughs> banal boo xam ne dal nañu bëri soo toogee sans sa téléphone da ngay wéet munoo toog une seconde imaginer sa bopp te yoroo sa téléphone balaa ngay tëdd yaa ngi yor sa téléphone perte de temps doo mën a am sommeil normal doo mën a nelaw parce que tout le temps yaa ngi ak sa téléphone donc pour nga rééduquer waat sa bopp lan moo la ko tegoon mooy tàmm tout temps di nekk ak sa téléphone ba nga xam ni bàyyi woo xel ni téléphone en ce dama ko war a bàyyi pour nekk ak sama bopp ni nga def ba installer habitude yooyu nga xam ne c'est négatif noonu ngay def pour désinstaller ko ceci dit que kon dama war a jël conscience parce que il peut arriver en nga fàtte nga ni ngay def dara nga bëgg a jóge ci habitude yu négatif yi nga fàtte donc du coup doo suivre li nga xam ne tey mooy li nga bëgg a def danga naan ah tey moom su ma yeewoo bëgg naa dorénavant à partir d'aujourd'hui ma arrêté par exemple di nekk sama téléphone tout temps naa teg sama téléphone 30 minutes balaa may tëdd comme saa ma mën a jàpp ñaan def samay askar tëdd pour mën a jël sama temps pour nelaw wala pour xalaat sax ci sama dund pour méditer et tout donc su fekkente ni loolu jël nga ko décider nga ko décision la intention la léegi naka ngay def pour tàmm ko mun nga nekk salal sa xel fàtte loolu nga nekk téléphone nekk téléphone bi après nga yu sa naa pourtant waxoon naa ni 30 minutes dinaa teg téléphone bi pour mën a def léeg-léeg li mais fàtte nga parce que tax parce que habitude bi la kon foofu nag ngay amee benn objectif mooy nga bind ko teg ko sa kaw kamoon nga di ko gis wala nga def réveil nga di ko dégg comme ça mu rappelé la la heure telle war a teg téléphone bi parce que tu l'avais décidé kon bu boobaa waroo trahir sa bopp fu parce que foofu tamit ngay amee confiance mooy li ma wax def naa ko parce que bu fekkee à chaque nga wax dara doo ko def da lay jox manque de confiance parce que xam nga tu n'es pas capable kon wax dara def ko day tax nga am benn capacité boo xamante ni mun nga yar sa bopp parce que quand tu dis chose danga koy def soo ne aussi du ma def dara doo ko def du coup le fait que tey nga décider. Euh, heure boobu jot na nga ni naa ko teg fee téléphone bi concentré son boobu quand tu le avec le temps di dem ba gis kon am nga capacité def li nga bëgg a def am nga capacité bàyyi li nga bëgg a bàyyi am nga capacité dindi li nga bëgg a dindi comme nit ñi nga xam ne dañu tàmm tux par exemple nit ki ne mu bëgg a bàyyi tux mais habitude bi tax na heure bu neex ba weer rek buy taal cigarette di ko tox sa di ko yëg mais avec le temps mu ne bëgg naa bàyyi tux léegi nan laay def kon à chaque nit ki nerveux war na xalaat ni là je suis donc lan laa doon def recours bu faj sama colère mooy tox kon la dootuma ko def donc tu décides que ni à chaque fois que da nga nerveux nga xool looy remplacer ak loolu nga xam ne moom nga doon def wala à chaque fois que tu t'ennuies li nga doon def mooy boo ennuyoo yaa ngi si tox bi yaa ngi si d'autres addictions tu essayes de les enlever avec li nga xam ne tey mooy décision et que du neex au début mais il va falloir beaucoup de temps et beaucoup de répétition pour nga mën a teggi lii def fi lii tout mauvaise habitude bu ngeen gis ni nga koy mën a dindee rek mooy remplacer ko par d' autres choses la nga xam ne mooy li nga bëgg mais munoon dama bëgg bàyyi li tàmmaloo koy remplacer parce que ça n' existe pas mais tant que yaa ngi dindi dara te defoo fa remplacement l'être l'être humain a l'horreur du vide nit bëggul vide waaw ah, mbokk yi tapatu leen écran bi ngeen euh, ngeen aimé ah ngeen tapati bu baax a baax mu ne salut sister mais coaching xanaa góor góor yàlla bokkuñu si ah yéen si boolewul seen bopp de xam nga yéen góor ñi da dangeen a da ngeen a suffisant ba mu ëpp da ngeen a da gëm seen bopp daal waaw coaching coaching kay pour ñëpp la ñëpp war a coaché wu en cas waaw soo ko soxlaa wax dëgg yàlla war nga mën a jël rendez-vous waaw boo jëlee rendez-vous rek incha allah ñu waxtaan xam nga góor ñi dañoo suffisant rek loolu mooy seen problème parce que nag jigéen ñi la ëpp la ci côté <laughs> suñu ñëwee si euh, nit ki boo xasee ba désinstallé say paradigme. ndànk-ndànk di nga commencé gis ne dinga am oyof oyof ban mooy oyof euh, que ni déchargé wu nga say mauvaise croyance ak say mauvaise habitude parce que gëm-gëm euh, bu bon wala gëm-gëm bu négatif gëm-gëm bu la amalul njëriñ daf lay yàqal lu bari ci sa dund te gëm-gëm dafa force doomu aadama tey di nga gis nit ñu bari dañuy gëm ay mbir yoo xam ni tey soo ko xoolee après da ngay xam ni kii li mu gëm moo ko tardeel te gëm-gëm yooyu des fois ñun amuñu ci benn responsabilité parce que dañuy judd rek mu nekk ay rumeur ñu du ko dégg ñu di ko topp ñu gëm ko sans pour autant ñu mës vérifier est-ce que réellement lii ñu gëm nii est-ce que lu ñu war a gëm la wala est-ce que lu ñu war a absorber la ou justement daf fi nekk pour nekk fi te loolu malheureusement tant que nekkul si tant que nekkul loo xamante ni jëm nañ ko dindi rek du dañ donc dafay laaj prise de conscience laaj action laaj aussi répétition bu ko defee ñetti processus yi moo fi dindi bépp xeetu euh, li nga xamante ni mooy loo xamante ni neexu la ci sa comportement beneen bi aussi mooy am objectif parce que nit tamit sooy dund da ngay am objectif objectif nag mën na yaatu mën nga am plusieurs objectifs léegi nag nit ki da xool lan mooy samay objectif de vie parce que auparavant muy man muy keneen nit ñu bëri dañ daan dund rek di dund pour dund tu tu vis pour vie ci vie pour vivre damay juddu ah am naa doom am naa jëkkër am naa liggéey jeex naa après tout la mooy subjectif tu ne sais même pas te loolu problème la parce que nit ki tamit sooy dund il nga xam euh, lan mooy sama objectif de vie. nit tàngu mu ne dans la vie il faut accepter les échecs et pardonner aux autres waaw lu am solo lu am solo mhm. parce que àddina moom c'est fait par des échecs waaw àddina moom am ak ñàkk moo fi am bu tayee mu neex bu subaa mu naqari àddina moo alterné woo noonu. nit moom boo bëggee sonn sa àddina rek mooy nga nekk bañ a parce que loolu moom malheureusement. Euh, kon wax ni rek euh, li nga xamante ni tey mooy am objectif ci sa dund xam aussi fi nga jëm xam sa mission sur terre parce que tamit la plupart si nit ñi dañu am problème boo xamante ni tey mooy problème mu spiritualité problème mu vide intérieur. problème mu ay soucis yu daje ci seen kaw te ñu ko régler parce que nit su fekkee ne ay problème dafa bëri sa kaw ay problème dajaloo sa kaw te ci nga jàpp ni amoo capacité régler ko wala sax jaaxle nga wala euh, problème yi dépassé na la loolu tamit beneen source la boo xam ne mën na la causer manque de confiance en soi ak ñàkk euh, ñàkk gëm ni yàlla suñu borom problème yi mu la teg jox na la capacité pour nga régler ko ba des fois ñu bëri mën nañu commencé di laajte lan moo tax yàlla teg ma lii lu tax lii di ma dal lu tax lii continuer di ma lii parce que tout simplement dans la vie euh, am na problème yoo xam ne su lay dal c'est parce que sa responsabilité moo ci nekk c'est parce que yow yaa ko causé mais la majeure partie ñun duñu nangu assumer suñu responsabilité ci problème mooy problème su amee dañuy na dañuy bëgg a gëm nii rek ndogalu yàlla la ah, et puis ba basta non c'est pas ndogalu yàlla rek mu jeex parce que say soo xoolee nit ki nga xam ne yaa ngi dawal sa oto gis nga par exemple panneau boo xamante dafa indiqué sens obligatoire à droite yow nga aw à gauche dajeeg oto nga ni ndogal yàlla la nañu xam ci dëgg <laughs> sa responsable ngi ci biir tey boo fa awul woon doo am accident. comme tamit nit ki ni ngay mën a dawalee bourle feu rouge am ci problème c'est la même chose tey moo tax yàlla suñu borom lépp lu ñu dal si lu bon parce que ñun ñoo ko causé lu ñu dal si lu baax parce que moom moo ko causé te effectivement parce que des fois ñun suñu ay erreur tellement que day subtil ba du ñu nangu ubbi le voile xool réellement problème yi may dal euh, wala bokk euh, musiba yi may dal ban responsabilité laa ci am en fait ma assumer ko parce que tant que assumer sa responsabilité soo amul chance dëgg mooy problème yi day répété wu di répété wu di répété wu et que après la majeure partie suñu dañu nekk ci position victime éternelle te victime éternelle ça n'existe pas nit ñi nga nekk victime pour un de temps tey lu la dal nga ni c'est la faute aux autres euh, bu sa liggéey marché wul nga dem seeti coupable am na koo xamante ni xëy na moo la moo la soxoree wala moo la ko xañ su sa say marché wul aussi sa fa sa futu jëkkër la wala sa futu jabar la say doom bu ñu yarul futu mbedd mi la ah euh, yow kañ ngay <laughs> yow ngay coupable <laughs> yow kañ ngay jël sa responsabilité du sotti il va falloir ñu jël suñu euh, suñu responsabilité te ñun sénégalais bu dee am na fenn fu ñu am problème mooy jël suñu responsabilité des fois nit am problème ñëw waaw sama sëy dafa problème parce que samay njëkk samay goro samay lii di nga tudd ñëpp ba mu des sa bopp. li ma wax tout le temps man musuma gis nit bu am problème ci sëyam ñëw ne ma ah man de sama sëy dafa am problème parce que man maa def lii maa def lii maa def lii. jamais chaque fois nit am problème ci sëyam day ñëw ne sama sëy am am na problème parce que sama jëkkër def na ma wala sama jëkkër def na ma wala sama sama samay euh, xarit wax nañ ma wala conseil nañ ma. mais nit bi du bëgg a assumer jamais sa te loolu problème gënu ko mag parce que doomu aadama nag bu ñu waxante dëgg rek lépp li nga xam ne mu ngi lay dal ci sa àddina am nga si part de responsabilité tu n'es jamais victime à 100 pour cent soo xamee ne je ne suis jamais victime à 100 pour cent ceci dit que yàlla may na la choix nga ni waaw nga ni déet nga bëgg nga bañ nga dellu ginnaaw donc soo choisir quelque chose wala nga def des actions dafay am réaction tey sooy def dara nga action ba pare yow nga du am réaction da am problème léeg-léeg nit ki ngay def dara nga jàpp ni yow tu es convaincu li ngay def lu baax nag fekk na suñu revisiter say intention du lu baax bu réaction yi ñëwee nekkul négatif tu te demandes mais pourquoi moom réaction yi négatif parce que man li ma def lu baax la c'est parce que intention yi nekk ci ginnaaw wala li la motiver c'était pas sincère du tout donc su la yàlla fayee li nga mérito doo ko bëgg parce que yow da ngay bëgg a nax sa bopp parce que la majeure partie ñu nag wax suñu bopp dëgg daf ñu jafe bu ko defee tu essayer nga auto convaincre sa bopp ah, lii ma def nii waruma woon am fay bi wala yàlla waruma woon fay li wala yà lii waruma woon dal wala dañ ma war wala dañ ma trahir parce que tout simplement doo revisiter réellement lii ma def lan moo tax ma am ci résultat yi nit mënul di def lu baax di am résultat bu bon je vous défie ne nit du def lu baax am ci résultat bu léeg-léeg nag le fait que suñu gis-gis dafa gàtt day tax euh, dara dina dal si àddina nga am si lecture bu négatif et pourtant soo dawalee quelque temps di nga gis ni loolu la dal même bu dee yow ci ni nga koy gisee c'était négatif avec le temps di nga gis c'était un bienfait mooy des fois euh, nattu yële dal sa àddina nga di ko am tout le temps lecture bu négatif avec le temps di nga gis ni yàlla du def dara par hasard lépp lu am dafa am processus bu ko waral te loolu su amee. processus boobu mooy waral tey nga egg ci benn résultat et qu'après tu comprendras et tu vas te dire que ah d'accord kon lii ak lii ak lii moo ma dal parce que lii donc nit ñi des fois bi ñu nangu euh, xool au fond fin fond du problème ban sagesse moo nekk si ginnaaw problème bi lan la ma yàlla bëgg a jox comme message lan laa war a rectifier lan laa war a comprendre ak lan laa war a defaraat ci sama toogaay mais noonu non des fois bu ñu dara dalee rek dañu commencé di blâmer kii blâmer kaa fekk na c'est pas ça moo tax ñuy bàyyi xel tout le temps suñu ay échec c'est de nos fautes ñun ñoo amul persévérance suñ lépp lu nga xamante ni yaa xam sa échec ci sa éducation doom nga ni mbedd mi mbedd mi <laughs> yarul sa doom parce que sa doom de base mbedd mi du mën a jot ci moom dara sa doom bu ci mbedd mi mënee dara c'est-à-dire que éducation bi c'était pas stable bu éducation bi dëgëroon am éducation bu forgé mbedd mi du ko mënal dara li may wax tout le temps dama ko wax tout le temps dama naan ku xool sa bopp xam ne bi ngay jógee sa kër waajur éducation de base bu dëgër moo tax nga rëcc ba toll ni nga toll am jikko yi nga am mbedd mi yàqu la kon tax yow sa doom yàqu nga bëgg jox fët bi mbedd mi parce que yaroo ko c'est ça tey sa sëy bu baaxul wala sa sëy bu neexul nga jël fët bi jeté ko say goro say njëkke te yow ngay fanaanoog sa jëkkër ngay wax ak moom communiquer ak moom relation intime bi nga am ak moom kenn ko moom si sur donc soo bëggee jël faute bi di ko jiiñ ñeneen c'est parce que nag tout simplement da ngay daw sa responsabilité. gis nga nit ki soo demee ba xam ne sa dund gi dañ ci am responsabilité et que tu dois assumer tes erreurs et tes actes c'est là où tu vas prendre conscience que ni am nga pouvoir bu la yàlla may. te soo demee ba xam ne am naa pouvoir def dindi changer wax waaw wax déet changer circonstances yi foofu na ngay commencer gagner confiance en soi. parce que di nga gis say événement vie commencé jël gauche nga xam ne am nga pouvoir jëmale ko droite et tu a le ma joxe exemple bu ndaw tey jigéen mi ngi nii mi ngi nii bëgg a par exemple bëgg ni man tey dama bëgg a def benn dama bëgg a def benn projet benn entrepreneur par exemple te loolu sama jëkkër ñu may takk daf ma ci fekk nga ñëw sa jëkkër ne noonu je ne suis pas d'accord radical doo liggéey doo nangam ñaari choix nga am ma dëgër. ma yóbbu projet bi ci kanam même bu sama sëy di kale kale jës j'essaye ma renouer ko wala boo ma décidé ne ko fa ñukk ma toog nekk femme au foyer détresse dépressif jooy euh, lamenté wu et tout le temps heure ma xëyee di mere sama jëkkër parce que daf ma tere lu ma bëggoon def ñaari choix yooyu nga te boo ci jël bu nekk nag am na conséquence parce que àddina yoon yi moo fi nekkee wàññil wàññil dama nekk ci direct donc du coup nga gis ni doomu aadama bi su fekkente ni Euh, da nga nekk si yoon ci àddina nga am choix def wala dindi et que choix boobu assumé woo ko bul maanaam bul bu mu la jaaxal que ni dina am ay conséquences te conséquences su ñëwee ay regret lay mujj mooy boo amee envie def quelque chose daf lay motiver lu la neex ñëpp opposé wu ci yow yaay teg ci balance nga xool li nga xam bëgg naa ko def ñëpp opposé wu ci muy sama yaay sama papa sama jëkkër wala samay entourage opposition bi ñu ci opposé wu. man su ma ko defee lan mooy conséquence yi dans les pires des cas loolu moo lay waral nga mën a jël décision mais dans le meilleur de cas lan mooy aussi bienfait yi soo tegee ci balance xool rek war nga am courage bañ a ragal xam ni fii ku ragal doo dem bëri na nit lu mu doon def par exemple ñu bëri tey mun nañu bëgg a def dara bëgg a euh, commencer quelque chose sa entourage yëpp opposé wu. nga décider def ko foncer ñëpp bàyyi la au début muy metti ngay galérer di daan di jóg muy metti ngay galérer daan di jóg une fois que nga yëg ci kaw ñëpp naan moom lii lañ la bëggaloon de lu baax rek lañ la bëggaloon de ñun kay xamoon nañ toutes les façons tu vas y yi fekk na araam dara moo tax gis nga nag euh, nit ki macha allah et vivant ñu ngi ñu ngi kontaan ci fleur bi <laughs> donc moo tax nit ki bàyyi xel que ni des fois nga bëgg am foo jëm te fi nga bëgg a jëm. sa yoon la ci dois y marcher toute seule même bu ñëpp àddina bi yëpp nekkoon contre toi parce que yaa ko bëgg parce que yaa ko désiré te booy marcher toute seule nga pare aussi pour jël say conséquences te arrêté naan kenn jàppale wu ma kenn soutenir wu ma nit ñi dañoo soxal nit ñi dañoo bon parce que en quelque sorte su amee ay bienfait yaa koy jëriñoo nit ñi duñ ci mën na am sa duñ ci ñam su amee ay valeur aussi yaa koy jëriñoo mën na am nit ñi duñ si ñam kon soo xamee loolu da ngay sa àddina mooy man su ma xamee ni sama dund en fait sama dund la c'est ma tey su ma ci amee ay conséquences su mbugal jotee yàlla man lay mbugal du la mbugal yow kon pour pourquoi yow ma lay bàyyi nga may nga may influencer wala di ma wax qu'est-ce que je dois faire wala lu ma war a def baax na wala bon na parce que en quelque sorte su amee conséquences yow tu n'assumes rien man maay assumer su amee aussi bénéfice man maa la ciy ëppale même bu dee da nga am. kon loolu suñ ko xamee war nañu xam ne war nañu arrêter vraiment tout le temps euh, ay nit duñu duñu duñu duñu obstacler wala di ñu yàqal suñu ay rêve wala di ñu démotiver wala di ñu décourager parce que toutes ces choses là bu yàggee mooy dem ba indi frustration tu parce que tout simplement tu vas te dire que tout le temps ah waa bëggoon naa def lii mais soutenir uñ ma yëkkati woon naa projet bi mais sénégalais dafa soxor dangay def lii mais duñ la jàppale mais duñ pourquoi tu attends l'aide des gens te yàlla ne fi sooy commencé dara tu te remets à Allah subhanahu wa taala et que tu procèdes nga def a def soo échecgee bul bañ ku la reetaan ku nekk na reeta sot ci problème am la mais tu te relèves xale bi nga xam ne da doon jàng dox heure bu daanoo ñu reetaan ko su doon xool reetaan nit ñi du mus a dox mais même bu xoolee reetaan gestu gis yaayam reetaan ko parce que mbëkk na mbëkk bi li day jógaat amaat courage daw jusqu'à ce que tey nga mën a dox kon soo xoolee loolu di nga xam ni reetaan nit ñi mokkari nit ñi commentaire nit ñi force ak courage la a doon ak détermination mais warul nekk looy obstacle kon nit confiance en soi aussi yaa ngi koy gagné à travers expérience yi ngay dund nga nangu assumer nangu aussi te mettre à l'épreuve nangu aussi di échec nangu aussi di assumer lépp li nga xam ne tey mooy lu ci baax ak lu ci bon pour nga mën a avancer. parce que à chaque fois nga jéggi benn épreuve à chaque fois aussi nga jéggi benn obstacle daf lay yokk confiance en soi parce que xam nga ni ça je l'ai réalisé lii je surmonté. ne d'habitude ñoo lay félicité en privé mais bien sûr bien sûr <laughs> man damay xool lu may commencé sama coaching bi am na ñoo xamante ni luñ ma yekkul amul parce que tout simplement noo dafay tas sëy yi non kii moom moo xam nangam kii moom nangam ñu ma gënoon jege des fois dañ doon def ay presque ut nit pour xëy na yebal ko pour kooku ñëw waar ma wala ñëw ah, wax ma da sama bopp wala ñëw wax ma quelque chose waa Fatima Zahra ni muy conseil jigéen ñi dafa leen di influencer dafay tas yi nangam sangam waaw donc warul gën ci réseaux sociaux yi j'ai entendu tout et du n'importe quoi mais est-ce que dama leen a faale faalewu ma leen tey ñooñ ñooy ñëwaat naan ah moom koy macha allah yow koy yaa ngi jàppale jigéen ñi yow koy sa liggéey bii yow koy yaa ngi jàmm yàlla mais que de quoi je m'en mêle si seen ay compliments ça ne m'intéresse pas parce que defuma pour ñoom li may def sama motivation intérieure xam naa li tax et ku ci ànd ak ku ci àndul amul lu may yokk amul lu may wàññi moo tax dama nit kii détermination dafa am solo dafa am solo. ne <laughs> astaghfirullah alxalifa nee na daa soxna bu nekk ci planète bi waaw baax na maa ngi ci planète Mars xëy na foofu laay wàcc di ñëw fii def laay bañ yéen <laughs> macha allah. nan la nit mën a defee sa papa ak sa yaay ak sa jëkkër di opposé wu nekk ci loolu waaw xam nga nit ki nan nga mën defee sa papa ak sa wu ci mbir ngay nekk si loolu parce que li nga nekk danga xam ne lu baax la. ma jox leen exemple bu ndaw tey di nga gis ay nit yoo xam ne par exemple dañu dem ba am benn euh, éveil spirituel yàlla xiir leen ci diine ñu décider di def quête de savoir ba décider ne man dama décider par exemple exemple joxe man je m'assume dama décider man dundatuma tarixa léegi damay dund uniquement li yonent bi sallallahu jàngale mooy l'islam authentique alxuraan ak sunna sa papa ne bul topp ñooñu ñooñu nga xam ne nangam sàngam dañu tar dañu lii dañuy weddi mag ñi sa yaay ne la bu ko topp sa jëkkër ne la bu ko topp boo leen toppee ma nàngam yow nga gëm nga xam li nga gëm nga xam ne lii mooy dëgg moom la fi yonent bi sa alayhi wasallam bàyyi woon li dugal yonent bi sa alayhi wasallam ak saxaaba àjjana yow moo lay dugal àjjana et que tu t'assumes et que nga gëm ko nga ni yaay papa jëkkër je vous aime très bien mais sama digganteeg sama borom moo ma leen gënal ndax su ma deewee yàlla man lay laaj naka laa doon jaamoo ci kaw teer su may laq wala mooy mbugal du ngeen dox sama digganteeg yàlla parce que mënul leen ma dara ndax yàlla suñu borom moo ne keroog yow mal du yaay du papa du doom du kenn ku lay mënal dara ndax yaay day daw doom doom daw yaay ku nekk di uti foo jëm ku nekk di uti wàllu kon bu boobaa ku nekk boo xamee lan mooy sa mission sur terre yoon boo jël bu ci ay nit opposé woo yow sois convaincu de ce que tu fais lu baax la et que lu lay jëmale kanam la et nga jëm ci jusqu'au bout gis nga boo eggee ca pandaw la ñoom ñooy dëpp di la topp te am na fooy tool sax da leen di woo ñoom ñëpp ñëw topp la te loolu mooy dëgg yaay ak papa bu ñu opposé si dara ça ne lu bon la ça ne lu négatif la ça veut juste dire que ni seen xel foofu la toll ci loolu la ñu limité wu seen vision du monde la seen bëgg-bëgg la seen désir la mais yow du sa bëgg-bëgg du sa désir parce que man du ma sama yaay du ma sama papa sama yaay du man sama papa du man sama jëkkër du man man man laa ce que li nga xam ne moom may motivé li may avancé loolu loolu maa ko xam et kenn gënu ma kenn du ma ndax yàlla suñu borom bi ma fi wàccee ba ma majeure laa am liberté de penser et d'assumer parce que su ma deewee samay bàkkaar kenn du ko laaj sama jëkkër kenn du ko laaj sama papa kenn du ko laaj sama yaay obéissance dafa am limite yàlla lépp lu mu def dafa am réglementation bu ànd ak aar bu mu ci teg mooy on obéit jusqu'à certain point et que là on n'obéit li ci des nag xam sa diine dafa am solo parce que dalay wan ni obéissance absolue ça n'existe pas obéissance selon déterminant règle wala déterminant situation mën na nekk te am na fu muy toll ci t'assumes et ku nekk jël li nga xamante ni mooy li nga moom. ne genre soxna yi rek wala célibataire ba dee ah kon mbaa doo doo doo dee ci sa célibataire gi ah baax na daal boo ñaanee eh, malaaka amin malaaka yi ne amin di nga am problème de ndax ñu ngi ci heure nangu ñaan nag. <laughs> baax na daal day la àjjuma de te waxtu bi ñu toll nii d'ici peu de temps pour ñun pour ñun moom déjà passé na mais pour ñu nekk Afrique d'ici peu de temps loo ñaan yàlla nangu la ko kon dem leen tàllal seen loxo boo bëggee genre soxna yi yàlla may la ku ma gën <laughs> mu ne surtout les femmes qui sont en Europe merci <laughs> baax na daal. parce que tamit dafa am solo ndax des fois dina am nit buy déglu. Euh, parce que nit ñu bari seen ay rêve mu ngi ci suufu kamoot yi ci suufu tiroir bi wala sa pas-pas wala sa digganteeg sa borom nga jël ko teg ko de côté parce que soi-disant que ah sama jëkkër bëggul lii sama sama yaay bëggul lii parce que loolu manque de confiance la en fait parce que quand tu manques de confiance en soi tu ne t'assumes pas yow loo bëgg a dugg bu la teree nga bàyyi yow foo jëm lu tax ñu dellu ginnaaw nga yaakaar lu tax ñun femmes sénégalaises yi tout le temps ñu ngi fi nekk di laajte ay masala waaw dama bëgg def lii sama jëkkër nee na dama bëggoon def laa sama jëkkër parce que jëkkër dafa jël place yàlla en certain moment taxaw rek bëgg ne sa dund moom dafa am moom lépp moo koy jëkkër dafa am fu mu yàpp te dafa am mbir yi nu ñu ko réglementé te am na foo xam bu fa tollee tu ne l'obéis pas tu suis ce que Allah t'a dit te doomu aadama xam sa diine dafa am solo c'est bien beau et suñu góor ñi macha allah bëgg nañu occuper place bu ngande bëgg nañu domination bëgg nañu wane ni maay kilifa maay lii maay lii dugal àjjana et tout c'est bien beau mais c'est pas la réalité àjjana ku fa dugg yaa fa liggéey lu la fa dugal tey safara it ku fa dugg yaa fa <laughs> yaa fa liggéey lu la fa dugal tu t'assumes am na ci loo xam ne aussi quand c'est di avant le mariage tu l'assumes tey sa jëkkër bu la fekkee ci liggéey ngay liggéey tey boo demee ba nekk ci foyer bi war a continuer sa liggéey wala sa liggéey di la yóbbu ngay voyage wala sa liggéey di la yóbbu ngay def certaines choses moom buy opposé wu na dem seeti feneen parce que malheureusement malheureusement li nga xam ne moom ngeen chartonté wala ci la la fekk avant le mariage il doit l'assumer s'il ne l'assume pas ça veut dire qu'il est hypocrite ça veut dire qu'il n'est pas véridique amul benn droit di te ma damay gis tey jigéen ñu bëri ñoo xam ne tey sa jëkkër dafa fekk sa carrière professionnelle dagg ko wala mu yàq ko wala mu saboté ko soit disant que entre guillemets sa kilifa la mu teg ko fan nee na ci diine nag la ko teg yooyu yaay ci ban diine ñun dafa dafa dem ba nga xam ni bokk de femmes tey dañu dem ba nga xam ne presque dañu mujjee euh, am benn gêne wala répugnance ci diine bi parce que dañu yaakaar ne diine bi protégé wu leen wala diine bi euh, dafay ànd ak góor ak kutoo kut ci lépp et ça c'est pas que ñun la suñu jàng xóotu rek c'est pas comme Et pourtant, on connaît toutes les réponses. Elles sont en couple. En couple. waaw réel du rek les qui ont perdu leurs parents damay wax ni bépp doomu aadama bu manqué bu dund si situation boo xamante ni euh, yar bi ça n'a pas été bénéfique parce que ça existe am na ñoo xam ne perdre ñu benn parent dañoo judd yaru ci wetu yaay papa personne les a donné de l'amour euh, paternel wala maternel du dañu am vide affectif te bokk na ci source yi nga xam ne mooy source manque de confiance en soi mooy dépendance affective parce que dangay ngay nekk en perpétuelle euh, continuation di laaj amour de l'autre et laaj amour de l'autre tey bokk na si ba ci au détriment détriment di li nga xam ne moo la arrangé tey bokk na si tey nit ki comme ni ñu doon wax sànq nga bëgg def quelque chose wala nga bëgg a entamer quelque chose nga ragal sa jëkkër dootu la bëgg wala nga ragal sa jëkkër dootu la nopp nga gaañ sa bopp gaañ sa bopp bàyyi say rêve say ambition parce que tu as peur que ton mari bàyyi la wala dootu la nag wala mu takk keneen parce que tu es dépendante affective ndax manque affection moo waral tout le temps tu essaies de d'acheter wala tey ngay ànd ak nit wala sax ngay liggéey ci benn boîte le fait que tout le parce que tu as peur que kenn dootu la bëgg kenn dootu la jox benn place bi kenn dootu la tàgg kenn dootu la yëkkati parce que tu as peur de perdre l'amour de l'autre donc tous ces creux-creux là ak problème yooyu fu mu jóge ça dérive de l'enfance parce que su fekkente ni tey depuis en enfance bi amul confiance en soi bu ñu la jox la plupart tey si yaay yu ñu xam yaay africain yi maman je t'aime boo leen ko waxee daanaka dañu ah nga ni lan maman je xamuñu ko comprendre ko la plupart xanaa maman nouvelle génération gi la majeure partie xamuñu câliner seen doom. la majeure partie xamuñu seen doom di souffrir ñu dalal ko motiver ko réconforter ko lu ñu lay wax waaye yow muñal xanaa yaa fi mujjee souffrir yow si problème bi dong bàyyil di réyal affaire yi amoo kuy accueillir sa souffrance. donc euh, nit ñu bëri dañuy dox mais dañu am vide intérieur parce que la majeure partie ci nit ñi. ils ne sont pas connectés à eux-mêmes wala elles ne sont pas connectées parce que connecté wu ak sa bopp tey mooy euh, nit ki sa fort intérieur xam nga ni carrément que ni amour bi ngay ut ci nit ñi ci yow la nekk te amour boobu pour nga jox ko il faut que nga defal sa relation ak sa borom parce que vide boobu tey li ko mën a combler du dara lu dul l'amour la tey soo demee ba mbëggeelu sa borom confiance ci sa borom dévotion ci sa borom fees ci sa xol mais tu t'aimes parce que yow xam nga en tant que être humain capacité nga am sa borom et que quand tu t'aimes tu n'as besoin de l'amour des autres bëgg baax na ku la bëggul na avancer que là tu vis bien et que tu en paix en harmonie avec toi et que soo bëggee yàlla suñu borom yàlla bëgg la te yow boo demee ba am benn amour bi ci sa borom am amour boobu aussi ci sa bopp tu aimes tout le monde tu donnes de l'amour sans attendre l'amour de personne xaaroo dara ci kenn et que lépp loo war a def pour yow xaaroo validation de personne ku bëgg moo xam ku bañ moo xam l'essentiel mooy tu es courtois tu respectes les autres et que lépp li nga xamante ni war na la ak ñeneen ñi tu le fais et que avec temps nga gis ne nit ñi ñooy ëlbatiku ñëw amul bi nga leen di diffuser amour bi nga leen di jox nit ñooñu lay bëgg naturellement te defaloo leen dara. que faire quand rien ne va ah rien mag na de ma chérie que faire xanaa dafay am ay côté yu yu yu qui am ay côté yoo xam ne ça va parce que quand rien ne va c'est c'est très grand parce que nit ki mën nga ne ah dama am benn par exemple dama triste wala dama dépressif mais tu as la santé tu te portes bien feebaroo te doo hôpital. yaa ngi lekk yaa ngi naan donc yaa donc yaa ngi ak say faculté dafoo tàqaliku si sago donc en quelque sorte mën nañ ne bul ne rien ne va da naan quand quelque chose dans notre vie ne va parce que li ma wax chaque jour soxna yi mooy euh, nañu fexe keroog def naa ci benn vidéo nañu fexe di cultiver la gratitude mooy des fois quand tu as l'impression que rien ne va defal autocritique bu baax a baax nga saytuwaat sa dund nga xool est-ce que sincèrement rien ne va wala est-ce que sincèrement dafa am juste quelque chose qui ne va nga bëgg a globaliser généraliser loolu nag problème la mooy doomu aadama à chaque fois ngay yëg métti métti sa xol commencer di euh, xool di càmbar sa dund nga xool xéewal yi la yàlla may nga sante ko yàlla parce que tey gis nga xéewal yooyu tant que yaa ngi koy gis doo nekk ci tristesse parce que di nga xam ne yàlla daf la teral di nga xam ne aussi yàlla jox na la lu bëri loo xam ne say morom amuñu ko li nga xam ne aussi yàlla naqal na la ci côté yu bëri yoo xam ne say morom amuñu ko et que quand tu es reconnaissant yàlla suñu borom moo ko ci alxuraan wax ma ko yàlla nee na boo dëkkee di ko sant sant bu sincère bu jógee ci xol reconnaissance boo xamante ni tu le sens dans tes veines yàlla neen dama lay yokkal dama lay fulal bu dee jàmm la mu yokkal la ko bu dee xaalis la mu yokkal la ko bu dee mbëggeel nga bëgg ci sa entourage mu yokkal la ko parce que lu tax parce que tout simplement tu es reconnaissante mais ñun suñu problème tey tellement que dañuy dund dund automatique. Eh, xanaa mu ne xanaa dellu suñu borom rek macha allah ah, dëkkee istixfaar ak sant yàlla. parce que doomu aadama bi euh, dina am ay moments de tristesse et c'est réel ñun ñëpp dañuy dund ay fas suñu dund léeg-léeg nga triste léeg nga kontaan léeg nga jaaxle léeg-léeg émotion la yoo xamante ni doomu aadama bi dañ koy dund. tey doomu aadama bi soo demee ba am conscience que ni àddina nag moo bindoo nii ça c'est la nature de la vie c'est la nature de l'être humain mooy léeg-léeg nga yeewu fekk am nga lépp maanaam am nga lépp su ma ko waxee mooy am nga looy lekk sa frigo amoo ay factures yu traîner yaa ngi am wér-gi-yaram kenn génnewu la si mbedd mi tu as tout mais tu vas mal parce que intérieurement dangay souffrir bu boobaa nga dellu def sa istifaar nga tudd yàlla ba pare nga re maanaam agence say pensées parce que des fois pensées négatives yi passé mooy li wax tout le temps booy dund dans dans le passé tu tout le temps mal tout le temps da ngay souffrir sooy dund dans le futur tu es tout le temps anxieux maanaam booy xalaat lu ñëwagul ci jaaxle ngay dëkk jaaxle ay man lii nu ma koy defee lii mooy fay sama facture bi lii nangam sangam ay man sama lii defaguma ko sama natt bi bëgguma ko dafa may jëlee lii yow doo toog ba mu yegsi bu yegsee yàlla jox la ko tu essayes juste ngay ñaan yàlla def les les causes et que su yegsee nga mën ko def mais sooy dund ci li ñëwul ci anxiété ci jaaxle ngay dëkk sooy dund ci li passé waaw defoon nañ ma lii lii daloon na ma sama problème yi nangam sangam dama nekk ci pro jël problème bi muy gën a taaweeku di gën a amplifié wu seytaane di ko yokk di ko jox ampleur ngay gën a dugg ci tristesse sa moral di gën a wàcc nga dem a dem ba nga xamante ni àddina da dool saf te yëpp la moo ko waral c'est parce que tout simplement li ngay remuer di remuer di remuer dafay nekk loo xam ne daf lay sonal nit da nga war a am benn maanaam méthode planning de pensée quand tu vas mal tu te mal da ngay def ñetti réaction naa jàpp naa tudd yàlla naa zikr su ma mënee julli ma dem julli su ma nekkul ci position jàpp ak julli ma commencé tuddu yàlla ba pare nag ma xam ne lii sont des pensées négatives naa essayé ne ko fi ñuq dem xool. am ngay projet yu neex xanaa nit ku ne am ngay projet d'ici dix ans je rêve d'être ceci wala cela je rêve de faire ceci wala cela tu te concentres sur tes objectifs wala nga concentré ci li nga xam ne aussi mooy ce que tu déjà réalisé et que jox na la satisfaction nit ki am nga loo xamante ni sa dund soo ko xalaatee gis nga ni mbégte la lay procurer nga essayer centrer sa bopp ci pensée yooyu mais bu dul loolu suñu xalaat yi du ñu yóbbu fenn fu baax ci problème dong la ñuy dugal ñu dëkkee tristesse naqar fu ñu la fekk tu vas mal parce que tout simplement mal boobu yaa koy jël di ko gas di ko togg di ko gas di ko togg et que boobaa même ces relations ça va mal parce que imagine soo triste kan nga mën a jox bonheur ci àddina koo dajeel wax ji day sedd nit ñi du ñu am sax envie partage ak yow parce que tout le temps amoo benn motivation tout le temps yaa ngi triste tout le temps doo am joie de vivre par contre soo gisee nit mu am joie de vivre da nga ah, ngi sourire mu ngi reetaan dafay mettre mais yow si tu n'es pas capable de mettre les personnes à l'aise tu n'es pas capable sourire kaf waxtaan kenn du la bëgg kenn du la apprécier parce que tout simplement yaa ngi nekk ci énergie bu négatif donc nga essayer cultiver ce joie de vivre nga xam ni xol bi yaa koy vider mu vider yaa koy jël accumuler aussi des pensées négatif ak des pensées yoo xam ne amul la njëriñ et que mu ancré wu fa donc essayer modifier sa pensée sa xel bi yaa ko moom moom moomu la yaay décider lan nga bëgg a xalaat ak lu ma bëggul xalaat man tey su ma see jékki-jékki mango ñëw sama bëgguma xalaat mango damay xalaat orange ma xalaat orange et que suma xalaat yi day ñëw donc lépp lu xel xel dafa nekk benn instrument boo xam ne macha allah yàlla suñu boom dafa ñu ko defal mais dafa dafa phénoménal dans le sens que soo bàyyee sa xalaat yi day taw rek di taw rek di taw rek te lu taw li passé li ñëwagul lu ñëwagul donc tu ne dans le présent mais boo focusé nga xam ne xel bi maa ko moom moom ma moo tax ñu la yaral sa xel bi parce que soo ko yarul tout simplement day divaguer divaguer comme fas bu amul buum là tu décides de savoir lan laa bëgg a xalaat lan laa war a xalaat ma essayer nekk ci lu positif essayer nekk ci gratitude di sant yàlla essayer nekk ci jéggalu yàlla essayer aussi nekk ci pensée créative pensée boo xam ne tey bañ a nekk ci journée yu dépressif yaa xam ne dangay liggéey liggéey soo amee jot bu bëri chercher lan nga mën a def si sa jot bu bëri boobu quête de la connaissance jéem a xool boo leer na ma ne sa kër boo ubbee sa kër di nga xool loo war a raxas loo war a nettoyer loo war a ranger loo war a defar bëri loo xam ne tey soo xoolee war ko ko defar quand tu as trop de temps par exemple temps bi bëri na gis nga ni yaa ngi ennuyé journée yaa ngi passé au lieu nga toog di seetaan mais xoolal tey lan laa mën a modifier sama kër fauteuil bi fi la teg woon xaaral ma xalaat déplace ko fii ah bi fi la teg woon xaaral ma xool fan laay gën a defaraate exemple fii war naa mën a def fii déco war naa mën a def fii lii war naa mën a def jéem a xool naka ngay amee pensée créative yoo xam ne daf lay dimbali nga occuper cerveau si d' autres choses waaw def sport aussi waaw méthode bu macha allah la waaw parce que def sport aussi dina la dimbali nga dem si leneen waaw mën nga nekk tey ne maa ngi toog awma ma def maa ngi dépressif maa ngi nekk théâtre yi jëlal say casque nga teg ko nga teg sa alxuraan nga commencé ñokkati sa suuf laal génne say armal pirier say bagage sa garage sa waañ am nga loo war a bomb am nga loo war a defar et que là nga défoulé wu foofu sa énergie parce que y a beaucoup négatif yi négative yuy accumulé si nit ñi des fois et que tu as besoin soit nga def sport soit nga libéré ko tâche ménagères yi wala def quelque chose xam ne li man sama man li ma daan wax naan sama benn xel ne moom bu meree mu ngi dem di mu ngi fóot mu ngi raxas jour boobu kër gi day set ma ne ko loolu mer bu <laughs> parce que au moins ça à libérer <laughs> les pensées négatives <laughs> par contre su fekkente ni tey à chaque fois nga mer dangay toog dépressif di jooy woo nit yaa ngi jéem a xool koy woo koy partageel mu xamal la comme ça yaa ngi jéem a ut tout le temps ku lay soutenir ku lay ku lay ku lay kuy ànd ak yow kuy far ak yow du fa jóge tu as tout le parce que lu tax ndax ki ngay woo bu mel ni yow fa lay nekk di la pomper situation bi du la jéem a au lieu mu jéem la yëkkati situation bi fàtte loolu ko wala ne la ah loolu garaawul bu ko jox benn importance bi yow tamit jéemal nga jéemal nga libéré wu bu ci bu ci jéem a attardé wu waaye déedéet bu mel ni Fatima sax ii ay yow ndeysaan yow loolu moo la dal ay yow masadi e bu ko bàyyi noonu de sinon da ngay ñàkk fayda nga commencé nag nga pare nag <laughs> gis nga jamono ji santé mentale ku ko am yaa ko may sa bopp billaahi ma ngi leen koy waatal tey am na si entourage wala ay xarit wala télé bi ci ay chaîne wala ci réseau yi am na loo xam ne seetaan ko santé mentale doo ko am parce que fuñ la fekk yaa ngi ci ay situation yoo xam ne dafay jël sa énergie dafay capturer sa énergie et doo def dara lu bénéfique sa dund doo reproductif doo nekk nit bu joyeux doo nekk nit bu kontaan te nit ki tamit li ngay inspirer wala boog li ngay aspirer rek nit ñi moom la ñuy jël si yow. quand tu es une personne joviale contente foo dajeeg nit ñi dañ lay bëgg nit ñi dañuy bëgg a nekk ak yow sa sa sa compagnie dañ koy désirer mais soo nekkee nit boo xamante ni tout le temps yaa ngi yaa ngi frustré. yaa ngi am di mauvaises énergies mais nit ñi dañ daw dañ lay daw. xel bi lépp lu ciy ñëw mën nañ ko contrôler. mu ne soxna si sa muur bi rafet na macha allah ah, merci beaucoup ma chérie dama ko laxasoo nii rek xanaa gisoo laxasu rek la waaw ah, laxasu rek <laughs> merci beaucoup en tout cas waaw. Ah. damay wax ni balance bi nga ko teg poids ba mu am ci yow rek moom la am parce que yow yaay xool sa àddina soit nga dund. liñ naan lâcher prise il faut que des fois bàyyi situation yi am na yoo xam ne tu peux les gérer situation yoo xam ne mënoo ko gérer yàlla rek moo la ci mën a génne. nit soo étudier sa situation nga xam ne situation bi yàlla rek rek miracle yàlla kese ma ci mën a génne dëkkal julli ak ñaan nga bàyyi kook yàlla parce que tey nga jooy ngay yuuxu nga obstiné wu loo mën a def ça ne change kon doo ko bàyyi ak yàlla. am na loo xam soo xasee ba comprendre dootoo stressé wu dans la vie parce que xam nga ni lii du sama capacité doomu aadama yàlla moom si man a génnee tey nga nekk ci say nekk ak sa jëkkër mu am comportement boo xam ne xam nga nekkul ci sa euh, capacité pour nga jëlee ko ci loolu. parce que bu doon yow la mën nga changer sa bopp mais sa jëkkër mënoo ko changer li nga mën rek mooy yedd ko waxtaan ak moom yaa ngi koy yedd yaa ngi waxtaan ak moom et il ne yow nga essayer focus ci sa bopp nag bàyyi di joxoñ parce que tout temps yaa ngi nekk ci nit ki nekk focus focus ci nit ki ba fàtte yow sa bopp nooy def ba doo tiris nooy def ba am bonheur gis nga soo centré waatee ci sa bopp nga xam ne yaay sa l'unique priorité dans la vie et que tu li nga xam ne tey mooy li nga bëgg rectifier avec le temps da ngay gis sa entourage dañuy commencer changer parce que sa attitude envers ñoom mooy changer te loolu bu changer rek ñoom seen comportement seen réaction ni ñu jëflanteeg yooyu lépp dafay changer automatiquement centre bi soo décidé soppi lu bëri ci ni nga mel si say jukkoo ci ni ngay doxalee lu bëri dafay changer naturellement sans pour autant nga def benn benn def benn effort. mu ne ma kuy tàyyel fu mu toll nag loo koy conseil kuy tàyyel fu mu toll balaa dara di xew sport bokk nañ sa dund. tàyyel li koy waral mën na bëri mën nga nekk amay nekk ci événement yu la dépassé mën nga may problème yoo xam ne mënoo ko solutionné. mën na nekk da ngay tayal parce que tout simplement jàpp nga ne yow sa dund gi tu n'es capable de faire rien parce que amoo objectif en ce moment da ngay jël sa kay accès bi nga commencé nag tracer sa dund gi lan laa bëgg fii ak une semaine lan laa bëgg a réaliser fii ak un lan laa bëgg a réaliser fii ak année prochaine kan laa bëgg a doon waxuma da kan laa bëgg a doon maanaam soppeeku <laughs> xam nga c'est possible tey doomu aadama tey fii mois bëgg naa nekk nit bu gën a généreux bëgg naa nekk nit bu ouverte bëgg naa am tuuti connaissance. bëgg naa nekk nit bu éloquente bëgg naa nekk nit bu positif bëgg donc say capacité en tant que être humain nga am objectif yokk ko te loolu soo décidé li ma wax ni soo décidé changer sa intérieur sa extérieur day changer mooy soo décidé changer sa xalaatin sa mode de pensée évoluer acquérir de connaissances sooy waxtaan sa waxtaan dafay riche ku lay côtoyer day xam ne tu es une personne te day bëgg a nekk sawet day bëgg di waxtaan ak yow bëri na jigéen ñoo xam ne dañu lamante wu ah sama jëkkër du man. sama jëkkër duma lii sama jëkkër duma laa parce que tu n'es pas intéressante ma chérie quand tu es intéressante sujet bu sa jëkkër teg ci table ji nga mën ko décortiquer parce que tu t'intéresses aux choses yi nga xam ni dans la vie mën na ko apporter beaucoup de choses mais kooku sa waxtaanam da koy dolli et il sent que da nga koy apporter quelque chose mais su fekkee ne yow sa waxtaan yëpp mode bi la cas yi la euh, waxtaan yu terre à tu es basique ni tu peux aider personne et que quand tu deviens intéressante sa dund intéressant parce que yaa ci def épice yaa ko intéressant loo mooy même bu dee supposons ah célibataire là je vis seul j'ai pas d'enfant pas de mari je me lève tôt avant d'aller au travail ma dem sama sport ñëw naan def naa li ma def julli naa def naa samay askar waaye sama kër ba mu impec balaa may génn sama kër dem naa au boulot ñibbisi naa sama kër impec na julli naa defar sama reer su ma amee envie toog seetaan télé ma seetaan télé benn minute su ma amee envie lire ma ma amee envie def quelque xool loo xam ne dina bénéfique pour sama temps parce que je vis la vie que je veux je veux vivre dund bi may dund bàyyiwuma mu may diri rek maanaam heure yi di dem rek damay dox rek pour comme ça mais non dund gi man maa décidé dorénavant décidé dund maanaam mettre des pratiques dundee ko ni ma ko bëgg a dundee organiser sama dund. am na événement yoo xam ne amoo ci contrôle yàlla mooy décidé bu ñëwee ci sa kaw tu acceptes xam ne lii ndogalu yàlla la egg sama kaw dama feebar. dama dama dama dama am ku ku dee dama am koo xamante ni par exemple arnaqué na ma wala dama am y a des choses qui t'arrivent nekkul ci sa sa sa ndogal si ndogal yàlla gi la je les accepte c'est pas la peine de la tête c'est pas nga ci crise c'est pas la peine nga ciy jooy c'est pas la ko ci yàlla tu les acceptes et tu avances li nga maîtriser mën ko def tu mets des actes et tu vis ta vie bi nga bëgg a dund à chaque fois ngay tàyyal di dépressif parce que sa dund gi ngay dund neexu la change la bi may dund ma nan laa mën a def pour changer ko quelles sont les choses que je peux apporter pour changer ko il faut que na mu clair dans ta tête pour nga mën ko mettre en pratique tey man xaw ma sa dund su fekkente ni man xaw ma sa dund mënu ma la dimbali pour ne la ah sa dund ta journée c'est comme ça que ça se déroule lii nga war a changer mais yow yaa war a xam ne man su ma yeewoo lii mooy samay priorité lii mooy li ma war a def léegi sama dund man ñii muy doxee nii neexu ma xale di may àndal neexuñu ma parce que joxuñu ma dara lu intéressant dañ may la vie nit ñi dañ may utiliser wala nit ñi dañ may wor wala nit ñi dañ respecté wuñ ma j'ai les sages j'ai les sages te tey sage <laughs> ak yombu relation à chaque fois tu peux le définir bàyyiwuma la mais damay définir la relation bi dama doon passé ak yow une heure de temps deux heures de temps maintenant je passe avec toi cinq minutes dix minutes avec le temps dina dem ba cinq minutes yooyu dix minutes chaque jour léegi cinq minutes dix minutes une semaine lay doon bu yàggee un mois bu yàggee ku nekk dem sa yoon parce que apporter le ma rien de bénéfique dans ma vie li may wax naan boo amul fulla da ngay dund dund nit ñi mais doo dund sa dund te loolu lay indi frustration parce que dund keneen ngay dund te tant que demoo ba xam ne sa dund nga war a dund et que tu as les capacités de le faire ci frustration ngay def. àddina daal comme ni may wax ne ñun ñoo ko mettil ñoo ko compliqué parce que tey soo ñemee nekkoon ci ay maanaam bla ay choses yu yu ñàkk fay da nga jël ko di ko réyal di ko jox benn importance bi di blâmer nit ñi dëkkee tout le temps di. laajte lu tax lii melul nii lu tax lii demewul nii lu tax yàlla teg ma lii lu tax lu tax bu dul jeex et que tu fais toog di jambatu di waxtu jël sa xol bi rek di ci accumuler di accumuler di accumuler en ce moment mais kooku ci ay waxuma feebaru xel mais feebaru <laughs> physique nga jëm parce que tey lépp li nga xam ne mooy euh, yenn xalaat yi stress dafay créer cortisol bu bëri te cortisol bu bëri bu yàggee day modifier sa gène yi nga commencé am ay feebar yoo xamante ni feebar réel feebar euh, physique parce que loolu la ñuy woowee les maladies psychosomatiques nga commencé di somatiser bopp bu metti biir bu metti tànk bu metti bu yàgg commencé am problème foie problème rein problème lii parce que lu tax ndax yow da ngay décider tout simplement souffrir souffrance décision la de <laughs> bonheur décision la <laughs> parce que affaire yi des fois da ngay dégg ku ne mais euh, comment ça fait mais su ma nee décision la parce que sa pensée yi yow yaa ko moom moom la c'est pas que pensée suñu xalaat bi dafay taw di taw non non yi. yow mën nga décider xalaat parce que par exemple des fois nga jékki-jékki sa xel ni yaru ci dara parce que tu as tu as voulu nga xalaat loolu parce que dafa la amee importance des fois nga jékki-jékki ni lii bëggatuma ko xalaat mais n'empêche dama koy xalaat tant que bëggoo ko xalaat xalaat bi day persister tant que yaa ngi naan bëgguma ko xalaat xalaat bi day persister su ma la waxoon tey xalaata bul xalaat plage plage boo xam ne tey mu ngi nekk Dubaï am ay cocotier rafet bu ko xalaat. sa xel ci place boobu lay dem parce que xel xamul euh, li nga xam ne mooy inconditionnel xel danga koy wax li mu war a def mais bu ko ne bul def lii comme xale rek gis nga xale boo ko ne eh bul laal lii de yaa ko attiré attention xel tamit soo ne bugguma xalaat lii yaa attiré attention mais xel bi da nga ko wax lu mu war a xalaat qu'est-ce que je dois penser dama war a xalaat par exemple am naa projet yu ma war a def am naa par exemple suba j'ai un programme bu ma war a def par rapport séminaire wala sama benn classe. loolu laay xalaat parce que c'est ce que ce que je veux je veux waaw table ji mais tu risques de souffrir rek waaw parce que souffrance dafa profond te day nekk tey sa cursus su dund depuis ba âge ba ni nga jëmee mat nga jël yépp nag di ko remémorer rek nga ne yow doo ci ci dépression nga dëkk manque de confiance mereeku la deful dara mereeku la deful dara il faut que nga décider mettre des actions am objectif am ay rêve gis nga doomu aadama espoir a koy dundal de gis nga soo amul espoir doo dund luy espoir yaakaar yaakaar ni sama problème bi yàlla dina ma ko defar dina ma ko solutionné yaakaar ni fi ak déwén sama dund dina gën a neex yaakaar doo ko ñu fi bàyyi ñun ñëpp yaakaar doo ci la ñuy dund yaa ngi yaakaar fekk na amaana suba du la fekk wala d'ici 24 heures nga yow occasion yooyu nga am doo ko saisir dangaa xam kañ la fan la naka la dañuy yaakaar rek ku nekk suñu mu ngi naan ah fii ak 10 ans fii ak 20 ans fii ak 30 ans la wax ni fii ak 24 heures di nga fi nekk. léegi yow imagine nga dund sa dund yëpp ci souffrance souffrance souffrance souffrance bu bés dee nga dee même pas vingt quatre nga dee qu'est-ce que tu vas dire à Allah yooyu la yàlla problème la mu ne suñu la liggéeyee nag à chaque fois ma dégg kàddu bi buñ la liggéeyee nag danga am preuve yu concret danga dem fekk nit ki mu toog di la xaatim di la liggéey bind sa tur bind sa sant danga ko gis ma dama ne tànk que gisoo ñu liggéey la sëriñ dong moo la ne dañ laa liggéey boo leel waxu sëriñ bi ak wax yooyu yëpp nga jël ko def ko ci potu sàmbur xam nga lu tax mooy gis nga nit ki say pensée moo lay liggéey man su ma gëmee ni sama dépression bu metti bi ma nekkee sama naa ñàkk gu metti gi ma nekkee parce que nit moo nekk si ginnaaw yi liggéeyal ma xel bi daan ah d' accord si suñu concerne ah, d' ba yow doo jóg ci liggéey doo jóg formé doo jóg tu ne vas rien faire pour am liggéey parce que yaa jox ordre sa subconscient que da nga gëm ni dañ la liggéey. xel dafa garaaw bul def sa xel jamais quelque chose yoo xam ne amul lu mu lay apporter à chaque fois doomu aadama nga ni buñ la liggéeyee nag amoo ci benn preuve teg ko fële dama ne su fekkoonte ni yàlla suñu borom jox na pouvoir njabarkat yi lu ñu def mu antu kon kenn ci ñun du fi toog nañu xam ni ni yàlla defee njabar nekk loo xamante ni lu am la noonu la yàlla suñu borom defee que ni doomu aadama yàlla daf leen a protéger ba du ku nekk ku tëb rek liggéey la. bu la liggéey dalee nga xam ne yàlla décidé ainsi mais je vais me battre je vais me battre bu maanaam si c'est le cas supposons que c'est le cas dañ la liggéey et après je me damay jóg di ñaan yàlla di jàng am alxuraan ndax yàlla suñu borom mu ne alxuraan mun na faj lépp defal say askar say protection del julli di dékk yàlla sa loxo di ñaan yàlla mu teggil la lii may njortu yàlla bu dee dëgg la teggil ma ko ndax yaay buur bi saafara te yàlla dala koy dindi ba mu dañ mais tey mënoon dañ ma liggéey rek nga daw ci maman yi maman yi ku leen sàkk du yàlla ku leen jox xam-xam du yàlla ku leen di defal mu ant wala mu bañ a antu du yàlla mu ngi mel tey sa bopp di métti nga jël euh, paracétamol bu tanee mooy yàlla la neex su neexee yàlla du tane su neexul yàlla paracétamol boobu naan ci fukk du tane kon euh, dafa am loo xam ne cause rek la cause maman bi tey nit mën na fa dem toog ah Fatima Zahra neexuma liggéeyal ma ko loolu cause la waaye léegi cause boobu kan moo koy activé <laughs> yàlla suñu borom. kon man bu dee yàlla laa gëm dama naan yàlla d'accord ak ku ma mën a def lu bon yàlla nag ma musal ci moom yàlla nag ma may doole bu ma ko surmonter au cas où loolu am yaa rabbi au cas où nit liggéey ma mu jàpp ma yàlla nag ma may doole bu ma surmonter épreuve boobu te nga teggal ma ko et ci laay dëkk di ko ñaan ba yàlla teggal ma ko daw ma ci maa mën daw ma seeti keneen muy ñu def la lu bon nga dem ne danga koy fajee lu bon parce que alaakulli xaal dem toog ci sëriñ moom musiba la te dina sant la ko ndax yow toute seule tu peux te soigner toute seule déggu leen ma maladie psychospirituelle yeeg maladie yi nga xam ne maladie yi ay problème mu liggéey ak njabar ak yëpp tu peux te soigner toute seule gis nga jullit lan mooy garabam sa taw tawxiit sa ngëm yàlla tey soo gëmee yàlla gëm yàlla bu sell bu set bokkaale woo ko ak kenn ak dara ñi ma sàmba ñi ma demba ñaanu ma teg ci nit wàqirlu ma ci nit su jootalu ma nit gëmuma nit yàlla kase laa gëm allahu wahidun moom kase kott dong laa gëm kàttanam gi xam-xam bi am amam mën-mënam yaa rabbi yow mi nga xamante ni yaay sama buur yaay sama borom lu ma dal yow la doomu aadama amul benn capacité yow loolu mooy sa protection sa gëm yàlla nga sa xol bi su gëm yàlla nga teg ci yow yaa ngi julli say waxtu juróom yaa ngi muur say awra sa kër gii tegoo fi ay musique ak ay masamba parce que dafa am loo xam ne ouverture énergétique seytaan la musique porte ouverture énergétique des chayatines la sa kër sooy dugg dox bismillah seytaan yi gunge la seytaan yi gunge la booy tëdd doo tudd yàlla seytaan yi gunge la doo def sa ñaan allahumma inni a'udhu bika minal xubusi wal xabaa'is seytaan yi dugg la soo yeewoo doo sant yàlla seytaan dugg la parce que dundoo ak yàlla suñu borom sooy dund sa dund gi nga xam ni yàlla laa laa euh, je dois ma vie ak allah subhanahu wa su ma yeewoo jàpp julli su may dugg ci duus tudd yàlla su may lekk tudd yàlla su may génn sama ko tudd yàlla lu ma jaaxal ma tiit ma tudd yàlla su ma triste ma tudd yàlla su ma angoissé ma tudd yàlla su ma nit menacé ma ni ko yàlla <laughs> yàlla fi nekk de yàlla laa jox sama boobu mu jeex loolu mooy sama protection loolu mooy sama antidote fu nit toogee toog ci sëriñ la plupart du ma mënal dara. dama koy jaaxal dina ma poursuivre ba son du mën a dara parce que xam na ni force gi ma am force gi nekk sama xol ak détermination gi ma am kenn moo ma ko jox muy yàlla parce que dama xam ni moo mën lépp te lu waaye def mu antu moom la neex te man ci moom laay muslu ci moom laay dénk sama bopp kon lépp lu ma dal tey yàlla moo ko dogal kon lu tax may ragal ay maa mën a nangam sangam mag lii tey loolu mooy sa prévention mooy sa antidote te loolu soo ci nekkee incha allahu rabbi seytaan du lu mën a dara jinne du la mën a dara nit du la mën a dara au cas où waaw compte au cas où yàlla décidé mu nekk épreuve mu bàyyi seytaane dugg la wala jinne dugg la wala nit liggéey la am na ñaari jàngat jàngat bi ci jiitu mooy ubbil nga buntu seytaane yaa xam kañ la nag parce que nit ki à chaque nga nekk ci bàkkaar wala nga nekk di def loo xamante ni yàlla suñu borom bëgg ko yàlla suñu seyaatin yi parce que danga teggi sa tànk sa fanka tegoon à chaque nga teggi sa tànk fanka yàlla bàyyi kon jàppal ni renouveler sa foi à chaque fois ñu jabar jàpp la wala seytaane jàpp la wala nga njort ne am na yu la daal ci mal occulte yooyu renouveler waatal sa foi jéggalul yàlla parce que nag ay nit lañ lay dafay bàkkaar te à chaque fois nga def bàkkaar ubbi nga benn fenêtre pour seytaane wala njabarkat yi wala mal occulte yi kon fenêtre boobu li nga war a njëkk def mooy activer ko tëjaat ko ci saasi mooy jéggal waatal sa borom renouveler waatalal sa foi defaraatal sa yéene jege sa borom kon leçon bu njëkk bi mooy bi ñu ci war a jàng mooy loolu beneen bi da nga delluwaat say ci sa borom nga xam ni mooy ki mën mooy ki am mooy ki xam nous on fait seulement les causes ah on fait seulement les causes après lu si am rek yàlla moo ko décidé noonu ñu nangu accepter accepter d'être malade accepter lii doxul accepter lii daal ma parce que uniquement yàlla ma ko dogal est-ce que daf ma leer ni liggéey bi ñu wax dañ ma liggéey ban preuve laa ci am su nekkee dëgg xayru su nekkul dëgg yow yàlla dina la mugal ndax da nga jiiñ nit lu grave muy kéeféer ndax à chaque fois nga jiiñ nit kenn dafa dem ci sëriñ ndax dem ci sëriñ yéeféer la da weddi yàlla yàlla moo ko ci alxuraan bokkaalekatu yàlla yi ndax la mooy bokkaale yàlla mooy damay ñaan ndimbal ci keneen ku dul yàlla dem sukk fa ne ko defal ma dindil ma nangamal ma te defal ma ak dindi ma yàlla rek lañ ko war a ñaan kon nag euh, mbokk yi nañu bàyyi xel ci loolu le Dieu noonu mu ne ma waxee ak yow jinne lañu ma booleel ci xaru la may xiir léegi dama bëgg xam ku la booleeg jinne ak ban preuve nga ci am xam nga lu gën a bon mooy wax si euh, wax boo xam ne yow dangay wax uniquement parce que ay nit ñoo la wax dangay wax parce que danga gëm ni ay nit wax nañ la convaincre nañ la parce que nit ñoo di wax tamit dañuy liggéey ak ay seytaan ah. tey ñi lay seetal di wax dañ la boole ay jinne ñoom tam dañ lay seetal te kii seet moom it jinne lay liggéeyal kon ñoom ñëpp a yam ñoom ñëpp a yam ñoom ñëpp jinne yi dañuy persécuté si bu ngoon jot <laughs> même bu ñu la boolewul ak jinne yaa ngi jinne yi parce que ku nekk am nga shayatin xaayir bu nekk ci yow di fanaanoog yow di yeewoog yow di yendoog yow te kon wax dëgg yàlla jinne da nga am na mucc ci ñoom mënoo mucc lu dul yàlla suñu borom moo la ciy musal à travers azkar yi ngay def à travers jaamu yàlla yi ngay def te kon bu dee jinne dañ laa topp marché delluwaatal sa borom ndax mënoo nekk muuru yaa ngi ci sol lu bon yaa ngi génne say awra yaa ngi ci déglu musique bi duutu du yàlla jegewoo yàlla li yàlla ne xaraam na bàyyiwoo ko li yàlla ne dagan na defoo ko après nga bëgg yàlla protéger la dañu wante dëgg nag mu ngi mel ni tey loi yi ñu teg ci àddina bi rek nga ni loi yi pour président de la république say loi respecté ci benn waaye yaa ma war a protéger nag <laughs> au nom de quoi dañu waxante dëgg du marché ça marche pas comme ça ça ne nga ne jënd dal na la moom si si dikk wala dañ la liggéey si si dikk renouveler waatal sa diggante ak sa borom marché après nag nga ñaan yàlla suñu borom ci sa ay sa ay jaamu ci sa ay ñaan yàlla suñu borom délivré la waaw loolu daal laa ci xam te bañ te nag euh, nga bañ a def benn maanaam nga bañ ko jox benn importance parce que nag gis nga lu nekk importance ak grandeur ba nga ko joxee moom lay am tey soo focusé sa àddina ci dañ ma liggéey rek nga jël sa àddina bi yëpp maanaam <laughs> am nga excuse de sama say neexul damay xëy di reewante suba ngoon jot di tooñ sama jëkk bi xam ne dañ ma liggéey du ma liggéey heure bu ma neexee absenté dañ ma liggéey samay responsabilité ma jël ko jox ko jinne yi <laughs> non non non non <laughs> ça je ne suis pas d' te Sénégal mooy dëkk boo xam ne da ngay gis nit kuy dagg ay saaga di manqué nit ñi de respect di def nit ñu leen neex suñu xam dañ ko liggéey dañu bàyyi c' est trop facile waaye léegi ma damay laajte kon yeneen dëkk yi nga xamante ni exemple <laughs> ay dëkk jullit lañu amuñu ñun croyance yu ñu am ñoom bu ñu amee musiba kan moo leen liggéey. jëlal say responsabilité ma chérie jugal nga yeewu nga sangu ba set nga takkaat sa ndigg ja dem tuub jéggalu sa borom te nga jëlaat say responsabilité te ñu bàyyi tout le lu jóg rek ñu wékk ko jinne yi rab yi seytaan yi nous aussi on responsable te gëm naa ne ñun moom keroog yow ma xiyaam nañ la yokk jinne yi rab yi seytaan yi parce que bëri na lu ñu leen di jiiñ te fekk na suñu naf si baqen kase kase kase mooñ ci téye nañu assumer suñu responsabilité sénégalais moo ko tëb lu la dañ laa liggéey quand les choses ne dañ laa liggéey soo nekkee di procrastiner loo def mu yàqu nga ni damaa njig jigéen dañ maa liggéey non non non c'est très facile ça waaw ah, yàlla moom li mu wax dafa leer yàlla dafa doylu dangay ànd ak moom mu taxawu la ànd ak moom mu bàyyi la <laughs> bàyyi la ak jinne ak rab yi lu leen neex ñu def la waaw ah, il faut que ñu bàyyi xel que ni nag àddina bi moom amul secret amul benn secret waaw. Ah, pression de lage euh, avec l'âge c'est impossible de changer de vie ah ma chère li nga garaaw na de pourtant yàlla yonent bi sallallahu alayhi bi ko yàlla di yónni il avait 40 changé de vie. et durant tout sa vie ci dundul woon leneen xamul woon sax la mooy nekk yonent bi ko yàlla yónnee il a changé de vie saxaaba yi ñu ci bëri su ñoom kañ la dugg ci l'islam ñi 60 ans ñi 40 ans ñi 70 ans ñi 100 ans <laughs> il n'est jamais trop tard doomu aadama da ngay soppeeku ba keroog ngay dugg sa bàmmeel bu la lii changé wu leneen changé la parce que alaa kulli xaal doomu aadama day changé ñun ñëpp dañuy soppeeku ku xool sa bopp daaw ak ren am na loo soppi ah, man ma changé bëgguma nit buy changé. dañ naan du ñu changé ci lu bon mais ñu ñëpp dañuy changé soit dangay changé ci lu bon wala nga changé ci lu baax kon nañ ñaan yàlla ñuy changé ci lu baax te ñuy sabablu aussi di def les causes pour changer pour améliorer suñu dund pour jëm ci lu baax âge ay chiffres la rek yow yaa koy jox importance bu mu am waaw amul benn euh, importance bu dul ay chiffres. ku dëkkee ne dem ci sëñ si moom yaa tayale sa bopp shayatin yi de waaw loolu daal xam naa ko <laughs> shayatin yi yàlla du ñu fekk kenn fi bu fekkente ni yaa ngi def li yàlla sant. wax yàlla yàlla dina la musal waaye bu dee yow yaa ngi dem ci euh, yaa ngi dem ci marabu yi ba pare nga bëgg mu ne donc comment on se comporte avec les marabouts respecté leen yàlla xam nga kañ lañ ñuy laaj ci suñu bàmmeel bu ñu deewee xam nga lu ñu mooy farata <laughs> lii mooy farata lii moo boole julli ci àddina bi yépp man rabbuka man kitaabuka man nabiyuka luy sa diine marabu amul lu dul respect je ne suis pas obligée ma gëm ko wala ma weddi ko parce que de toutes de toutes kenn yónni ko woon si man comme kenn yónni ko woon si man lu tax ma koy gëm yonent bi lañ ma sant ma gëm ko bu ma teree ma def bu ma bàyyi ma bu loo xamante ni marabu mu ngi la koy digal te mag bi moom mooy bu mag bi te du juum kon koy topp ko rek moo gën a wóor ndax boo toppee professeur yi ndaw ndawaan yi da xamoo de mën nga egg terminus comme mën nga bañ a egg waaw ah, kon kay nañu nañu topp rek li nga xam ne moom la ñu yàlla toppaloo man benn tarixa laay topp muy tarixa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunnatullah alquran ak sunna moo dugaloon saxaaba yi àjjana moo dugaloon yonent bi àjjana moo tax ñu ñi ñu jot ci lislaam te loolu moo obligatoire ci leneen lu dul loolu obligatoire topp li wóor moo gën topp lu wóor ndax ne déggoo li ma la wax boo duggee ci biir bàmmeel kenn du la laaj man tarixa kum de dañ lay laaj man diinu kum kitaabullahi wa sunnatu rasuulullahi loolu lañ lay laaj loolu xanaa xanaa simple na simple na de bu leen ko compliquer nag après li ci des na ma dëgg yàlla man loolu xaw ma ci lu bëri <laughs> ah, mbokk yi laay bu gudd na xam naa dama yem ak yéen fii ah di leen jaajëfal bu baax a la lislaam mooy dëgg te liy dëgg ci lislaam mooy alxuraan wa sunna ku ko toppul ma dëgg yàlla loo ca am rek nga jëlee ko ca noona ndax loolu lañ lay laaj ci sa bàmmeel loolu mooy li nga xamante ni tey moo tax ñun ñëpp ñu texe moo tax tey ñu egsi fu ñu yegsi te yonent bi sallallahu alayhi ku ko maanaam euh, dañ ko war a dañ ko war a mm, maanaam euh, jox ko cëram jox ko cëram mooy ñu bëgg ko ba mu gënal ñu suñu bopp yonent bi daf ñu war a gënal suñu bopp gënal ñu suñu bakkan gënal ñu suñu waajur gënal ñu suñu doom ndax tey bu ñu demee ba nekk ay jullit on le doit à lui képp ku ñu jël teg ko ci kawam mooy ay purux lañu ay baadoola lañu te yàlla du fay baadoola ak purux te yàlla du jëflante baadoola ak purux amuñu droit teg kenn ci kaw yonent bi sallallahu alayhi ndax tey koo fi gëm topp ko di ko sujjootal wala di ko raamal yonent bi la gëm gëmal yonent bi <laughs> c'est compliqué lu da ngay offensé wu lu da ngay vexé ndax sa xol di metti c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est tout simplement simple yonent bi on le doit on le doit tout yàlla suñu borom moo ko sant koo fi topp moom la topp koo fi gëm moom la gëm koo fi raamal moom la raamal koo fi sujjootal moom la sujjootal kon nañ ko topp c'est simple. mu bëgg ko sama xol lool di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole ak moom rek ñu yeewu jàkkaarlook moom ca eh, ah aljanatu firdaws comme suñu turu firdaws coaching bi rek waaw di leen jaajëfal yéen ñëpp di kontaan bu baax a baax di leen wax ni ah nañu jël dund gi d'une manière bu simple diine ji dafa simple lislaam dafa simple dafa neex tegul kenn lu mu mënul sa farata yi soo ci yamee sunna loo mën nga def ca ndax li ci des yëpp. boo ci dugalee sa bopp bu li ma naan boo bàyyee farata yi topp sun sunna wala bidaa ba loolu tegg la ci farata yi rek mooy tooñ nga sa bopp yonent bi dafa ne ku ci topp farata yi ma garanti la àjjana téye sa làmmiñ teg di wax lu baax tere bon bàyyi bàkkaar yu mag yi yonent bi ne mu garanti la àjjana téye sa làmmiñ téye sa pëy def farata yi moytu tere yi mu garanti la àjjana sa simple kenn sant la nga topp ma sàmb wala ma demba toppal yonent bi rek li ci des nag ñu daal di fi yem daal di leen wax beneen incha allah di leen souhaiter bon week-end ah du ñàkk bu ñu amee jot ci week-end bi ñu defaat beneen direct kon ñu ngi leen di wax ba beneen incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah